ginnaaw nuyoo bi tey jii ñu dolliwaat ma neen njàngat moo xam ne ci Aladji Malick TV njàngat moomee am na solo lool bu baax a baax ngeen bàyyi ko xel ci Sénégal gi ñu bokk Guy mari Sagna ah, tey jii nga xam ni ci suba gi ah, dañu ko arrêté ah, maanaam ci suba gi ci cooy bu ngeen gisee ñu andi vidéo bi ay leeral la yoo xam ne daanaka rek ndax pause information yi day bari moo tax vidéo njàngat yi ñu koy gën di rëkk muy dal ñu jàpp ni tey jii lañu ko arrêté moo ay xaritam yi nga xam ne àndoon nan doon yóbbu li nga xam ne mooy ab lettre boo xam ne ñu ngi ko doon déposé ci ambassadeur bu Tunisie ngir wane ni lëlee di xew ca Tunisie nekk loo xam ne lu ñaaw la loolee neexu leen loolee tamit am nañ ci naqar boo xam ne daanaka am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem teyet yi teyit loolee nekk seen droit boo xam ni bu war a mën a nekk la ñu arrêté ko moom mi nga xam ne honorable député la Guy Marius àndoon na ak ki nga xam ni mooy Yolande Camara ak coordonnatrice bi nga xam ni moo jiitee mouvement Notre Sénégal wala Notre priorité waaw SNP ak keneen ki nga xam ni moo nekk Cheikh Bokhul SNP moom it bokk ci ñi nga xam ni ñoom lañ arrêté ak ki nga xam ne mooy Mayoro Ndiaye ak ki nga xam ne moo nekk Talla Kairé ak Arona Ndong Kalidou Balde ak Abdou Sarr wala Abou Sarr ak ki nga xam ni moo nekk Aliou Gérard Kouaté kookee bokk ci ñi nga xam ni moom lañ eh, jàpp Aliou eh, Gérard eh, Kouaté ñu mën koo tudde noonee kon loolee nekk li nga xam ni lu am solo la liste bi nag gën naa gudd loolu waaye dañ leen tee compal ñi nga xam ni daanaka mat nañ fukk ba lu jige fukki nit pour ngeen mën a comprendre ni ñi bokk nañ tilist bi ay photo sax am na si photo yi ngeen di gis nii ñii ci lañ bokk nga xam ne loolee luñ mën a bari xel la ci Sénégal gi fi mu toll nag Sénégal daanaka soxla na leneen lu dul lii Sénégal lim ci gën a soxla mooy jàmm ak salaam di ko ci ñaan bis bu ne te yàlla yàlla def ci réew mi jàmm defal ko ci politiciens yi nga xam ni ñoo fi nekk ñoo xam opposition la ñoo xam ñi nga xam ne moo nekk ci pouvoir bi waaye ñun ñëpp nag sunu borom yàlla def ay xéewal fii ci Sénégal gi nga xam ni dëkk bu mucc ayib la